asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillahi arrahmani arrahim أعوذ بالله من السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nu bokkal lislaam ñu ngi sant ñépp di gërëm ñépp ñu fas yéene waxtaane tontu ay laaj yoo xam ne dana aju ci diine yenn yi ci sëyle aju yenn yi aju ca yeneen mu mel ne laaj bi ci njëkk mi ngi aju ci sududul jinsi bayna nisa maanaam sëy rapport sexuel buy dox diggante jigéen ak moroomum jigéenam lañ xamoon ci rapport mooy góor ak jigéen ñu takkante ci faratas yàlla ak sunnas muhammad waaye mu mel ni jamono dafa soppiku rapport di xew léegi diggante jigéen ak moroomu jigéenam comme ni muy xewee ci góor ak moroomu góoram wala bi la kii laaj moom dafay laaj ne lan mooy atteb lesbienne maanaam li ñuy wax lesbienne diggante ñaari jigéen ñuy sëy lan mooy sinub atte ci lislaam ndax lesbienne dañ leen di atte comme ñaari góor yu sëy yuy jote muy ak ngóor jigéen liwaat ndax atte bu mel noonu la ñuy atte ñaari jigéen yu sëy atte bi ñuy atte ñaari góor yu sëy ndax moom lañuy ñuy atte ñaari jigéen yu sëy tont bi dañ naan ko ñaari jigéen ñuy sëy ñi ña ñaari góor ñuy sëy lislaam mi ngi ko tuddee liwaab ak ngóor jigéen ak ngóor jigéen nag moo gën a tar njaaloo moo gën a tar njaalo mu ëpp danger njaalo tamit mu ëpp danger njaalo ndax ku ne xam na ne feebar mën na leen caa dal naka noonu ñaari jigéen ñuy sëy lislaam mi ngi koy tudde si xaaqu si xaaqo mooy lees benn ci arab loolu mooy lan lan mooy aw meloom nuñ koy xamee mooy jigéen day féete kaw moroomum jigéenam comme ni góor di féete kaw moroomum góoram walla comme ni góor di féete ginnaaw moroomum góoram ca ña koy def bu ko defee ñaari jigéen yi seen bidra li wax bidra di jonjante ñu yëg ca bànneex kenn ku ne ci ñoom ñaar def inzaal génne li ñuy wax sofra muy mànniw bi jigéen war a génne ñaar yee jonjonte nag moom laa wax ne mooy bidra muy copp copp lay doon bu cate bu nekk ci kanamuk jigéen day nekk ci kanamuk jigéen loolu nag ñoom ñaar moom lañuy jonjante buñ koy jonjante kenn ku ne ci ñoom ñaar yëg bànneex bu ko defee kenn ku nekk kanamam tooy ñu gis man niw man niw bi jigéen di gis ñu di ko wax sufra bu ko defee ñu mën a yëg seen bopp lañ bëggoon suñ defoon rapport danañ ko ci am wala ñu am ca lu ko jege loolu lañ ci jublu kon waa buñ dikkee ci àtteeb liwaat muy góor jigéen dañ naan góor jigéen moom atteb njaalo lañ koy atte atteb ku njaalo ñaari góor yu sëy atteb ku njaalo lañ leen di atte dañuy xool ne su ci kenn mësta am jëkkër bu afon ah, bu ci kenn mësta am jabar ci ñoom ñaar dañ koy dóor téeméeri yar ñaari góor yi sëy bu ci kenn mësta am jabar ci ñoom ñaar ki ci mësta am jabar dañ koy dóor téeméeri yar ku ci masa am ku ci mas a am ab sëy maanaam ku ci mas a takk soxna ñu sànni koy xeer ba dee ku ci mas takk soxna takk gu dagan ci lislaam ñu sànni koy xeer ba mu dee ndax day mel ne dañ koy jàppee ku njaalo te am te sengewu waaye ku ci mësta am soxna dañ koy jàppee ku njaalo te sengewu kooku dañ koy dóor téeméer waaye ku ci mas am soxna ci ñaari góor jigéen yi dañ lay sànni xeer ba ngay dee am na ñu ne melaw yi ñu koy reyee dañuy jël jaas jaasi ci lislaam dóor baat ba mu wadd am na ñu ne déedéet ñoom ñaari ñëpp dañ leen di sànni ci kaw montagne sànni liy xeer ba ñu dee loolu mooy àtteb góor jigéen waaye buñ dikkee ci àtteb lesbienne bu dee jigéen ak jigéen muy lesbienne ñoom ñaar dañ leen di yar dañ leen di yar ba dootuñu defati aada ju ñaaw ju bon ji dañ leen di yar ba dootuñu defati aada ju ñaaw ju bon ji war na ci wàlliwu kenn ku nekk ci ñoom ñaar maanaam parent kenn ku nekk ci ñoom ñaari jigéen ñi ñu waar sa doom kenn ku ne war naa waar sa doom fàttaliku mbugalum yàlla ngir mu bàyyi aada ju bon ji waaye kenn du leen rey kenn du leen dóor téeméer yar ñoom ñaari lees bi ñaar jigéen ñi sëy kenn ku nekk dañuy wax sa way jur sa parent kilifa mu wax ak yow yedd la ba pare su ko defee ñu yar leen bàcc bàcc leen duma leen xupp leen ba bu ëllëgee dootuñu ko def loolooy seenub àtte kon mu mel ne dañuy dem ci laajub ñaareel bi laajum ñaareel bi nag mu ngi jëre jëm ci ab a tariqatu lmuthalli fi fadlil bikkaarati yoon wi nga xam ne ci la ñuy daganale dagg ak ndaw laajkat bi moom dafay laaj ne boroom soal bi question bi dafay laaj ne dafa am waxambaane wu ma laaj te moom dafa takk benn jànq moom waxambaane bi bëgg a def duxuul maanaam bëgg a dem fanaan fanaan mu njëkk ma ginnaaw bi mu ko takkee bañ am ñaari weer wala ñetti weer la dem bëgg faa fanaan wax na ci laajam bi nee na soxna si fam dëkk dafa am aada ju fa xew dafa am aada ju fa xew dëkk ba daa aada ju fa xew ba pare xew ci dëkk ba mu tàqaloon maanaam dëkk dëkk bi ñu jege maanaam dëkk ba nga xam ne moom la tàqaloon mel ñu ne ko aada ji mooy lan mu ne boroom kër bi takk bi fa takk soxna dañ koy forcer ci mu def duxul ci soxnaam ci dagg ndaw gi ci baaraamam maanaam góor gi nga xam ne moo fa takk soxna bu demee bay joteek soxnaam bis bu njëkk ba dañ koy forcer ci mu dagg ak ndaw ndaw soxna si ci baaraamam la koy dagge waaye du ko daggee ci sàkkaram te bu koy def nee na yaayam day dugg ca néeg ba yaay ndaw si goro bu jigéen bi day dugg ci néeg bi ànd ak beneen meer ñaar lay doon ñoo dañuy dugg ci néeg bi luñ fay def ngir ñu jàppal waa ji tànki ndaw si maanaam kenn ku ne jàpp ci tànk ngir mu mën koo dagge baaraamam su ko defee jeeg ju bari nekk ci buntu buntu néeg bi di xaxar di yuuxaloo di yuuxu jëkkër ji ci naan ko gaawal ci liggéey bi ngay def gaawal ci liggéey bi ngay def ci ni mu gën a gaawe su jëkkër ji yeexee ci dàgg ko sax ñu duggal seen bopp dàgg ko boole kook saaga yu bon ak i ŋàññi moo tax jëkkër ji lu ci ëpp day nekk ci xat-xat ak i lor ba du mën a liggéey dara maanaam ba du mën a def dara ba du mën a joteeg moom na mu bëggee woon a joteeg moom naka noonu soxna si tamit day nekk ci situation boo xam ne bu bu metti la ndax ku ne xam ne loolu dafa metti lu ci ëpp sax da koy jural ay lor bu ci jógee day day day deret ju bari da ciy génne ba da dana tax ñu yóbbu ko hôpital mu am ci ay gaañu gaañu yooyu mu ne nag ndax lii daggan na ma def ko en tant que man góor ndax daggan na takk naa fa soxna ndax daggan na ci man ma dem defi loola dagge ndaw ga ak sama baaraam comme niñ ko bëggee ci man wala dëgganut nee na loolu lay laaj moom buñ ko teree ma bañ koo def bu fekkee lu ci lislaam wax daal laa xam kooku mbokk yi yaakaar naa laaj bi leer na tontu biñ koy tontu moom dañ naan ko aada ji moom aada ju bon la ju ñaawa ñaaw la ba ca ba ba ca dayo ba maanaam ñaaw na lool war na ci doaat yi maanaam ñi woote ci lislaam ak ñiy gindee ci lislaam war na ci ñoom ñu xeex ko ci bu tar maanaam war na ci ñoom ñu xeex aada ju aada yu mel nii war na ci boroom xel yi muy góor ñi ak jigéen ñi ñu fekk lu mel nii ba dootu am ndax aada ji day dellu ci bidaa biddaa bu ñaaw lool bi bokk ci biddaa yi nga xam ne sun boroom dana ci mbugale ngir li ci nekk ci ay lori yaram yi nga xam ne tudd ko ko ci sa laaj bi lori yaram yi ci nekk nga xam ne ndaw si lor giñ koy lor ak loolu ni mu mettee waaye nanga xam ne yow mbokk mi laaj dagg ak ndaw ci baaraam dëgganut ci li ëpp ci foqaha yi dëggana ko ndare góor gi dafa am ngànt maanaam dafa am dafa lot ci dagge ko zakaram su fekkee da ko dafa lot ci dagge ko zakaram kooku moom bu boobaa foqaha yi danañ ci d'accord waaye su fekkee lottu ci dagge ko zakaram dagge ko baaraam moomam dagge ko baaraamam foqaha yi xaraamal lañ ko ne nañ dagganut kon lii dana yell ci jëkkër ji mu ñeewant soxnaam ci jàppandi gim jàppandi ngir mu dàgge ko baaraamam su fekkee dàkkaraam mënu koo dagg mën na koo dàgge baaraamam waaye bu bum ko gaawantoo te na ci na na ca am am ñeewant te yërëm ko te bum ko maanaam bum ko defee noo xam ne daal da koy indil problème bu pare nanga xam ne tamit ak njanq lu xóot la maanaa euh, zakara lépp mën na caa dugg su ca lépp duggee bu fekkee dëggut danañ ko may mu dagge ko baaram bi comme ni ñu ko waxe woon bu fekkee nag dafa xotti la ko muuroon doonu dalil buy tegtale ne njaalo la ci baaraam doonu dalil buy tegtale njaalo la comme ni ko jumhurul fuqaha waxe ndaxte e, góor mën naa dem ci soxnaam ba pare du fa fekk dara du fa fekk ak njànq mën naa jamtalu ne njànq la ko dindi mooy da doon tëb mën naa ne da doon fo ba muy toll ci njànq far daanu njànq ga dañ mu dem du fa fekk dara loolu day day am day faral di am léeg-léeg wala daanoo ci palaas bu kawe jigéen mën naa daanoo ci jóge fu sori daanu bi mu daanoo yàlla dogal jànq ga dañ walla feebar mën na ko waral mën naa waral loolu lépp ak yeneen yi dut ay sabab maanaam yeneen sabab yu bokkut ak yooyu kon loolu bokk na ci li nga xam ne mën nañ koo tontu ci laaj boobu wassalaam kon laaj bi mooy attajarud min athiyaabi asna athna al jimaa futtiku ci jamono ji ngay jote ak sa soxna aji laaj bi dafay laaj ne dafa am waxambaane wu may laaj nit ki buy joteeg soxnaam futtiku ba set ndax loolu lislaam daganal na ko wala daganalu ko mu ne man sax dama am kersa dama am kersa ci sama soxna bu mu futtikoo ko muy gis sama awra yépp loolu dama ci am kersa moom it dafay am kersa ci gis samay awra yépp te ma dégg ci sëriñ si am ñoo xam ne dañuy wax ne lool lu xaram la ngir wax yonint bi am na xadis bu ma ci gis mu ne ida ata ahadukum ahluhu falyastatir wala yatajarrada rey ni mu ne kenn ci yéen buy joteeg soxnaam na suturlu na sol ay yére buñ futtiku ñoom ñaar comme futtiku mbaam ñaari mbaam buñ futtiku comme ni ñaari bàyyi ma di futtiku wala ñaari giléem ndax xadis bi wér na bu fekkee wér na ndax tere giñ ko tere tere ak araamal la kon walla du tere araamal kon loolu tontu biñ koy tontu mooy amut sikk sàkk ci ne suturlu moom mooy li gën a war futtiku wante su fekkee kenn ku ne ci ñoom ñaari way dencante yi maanaa kenn ci ñoom ñaari way dencant yi bu ka ca des solee ay yére wala futtikuwut lam war a yëg ca bànneex dëgg du ko yëg ca moroom ma jamono ji ñu jote kon bu boobaa dagan na ci ñoom ñaar ñépp ñu futtiku ngir kenn ku nekk mën a jot xam ci moroomam ndax lislaam moom lim xam mooy ñaari way dencante dagan na ñu bànneexoonte fu nu mën a bànneexoonte ñoom ñaar ba mu des buntu suuf ba loolu moom mooy sunum ngir di Maalik ndax futtiku ci diggante ñaari way dencante ci wéet walla jamono ja ñuy jotee loola am na ñoo xam ne ci lañuy ñuy gën a jote bànneex bu mat sëkk ndax alquran dikkut di contre loolu sunna tamit gisuñu fenn fu mu ko tere su fekkee woon nañ ko ñoom ñaar woon nañ loola futti futtiku ba set ñoom ñaar bu fekkee woon nañ ko gisuñu fenn fu ko alquran tere gisuñu ko fu ko sunna tere ndax sunu borom subhanahu wa taala azza wa jalla dafa wax ci alquran ne ci suratul baqara ay 233 ne nisaaukum xarthun lakum fa'tu xarthakum anne shi'tum seen jigéen ñi seeni tool lañ na ngeen leen dikk ca mbay ma fu leen soobe gob ba bu ngeen ko yore bàyyee leen nu leen neexe ay xalaa ay xaalin shitum ci melo wu leen neex man ngeen caa jote waaye na ngeen jote fa lislaam digle rek muy fa doom di juddoo futti ay yére nag dafa dafa doon melow bokk ci melo yi nga xam ne dañ ci lenn ci way denc ji dañ ci yëg bànneex kon boobaa day dugg ci xamumu aaya dugg ci xamumu aaya kon melow wu leen soob amaa bu dee xadis bi ñu tudd léegi nag xadis bi ki doon laaj laajaale muy ida ata ahadukum ahlahu falyastatir wala yatajarrada tajarrudul ayrayni kenn ci buy joteeg moroom na suturlu bu mu futti ko comme ni bàyyi ma yi di futti ko lu mel ni giléem yeeg mbaam yeeg yu mel noonu amma xadis boobu nag moom kenn du ko ixtijaajoo kenn du ko layoo fii fii kenn du ko fi layoo ndax xadis bi daiful isnaad la xadis bi wérut xadis bu daif la ibnu maaja moo ko solo jële ci otbatum na abdu salma sanad bi mi ngi jóge ci ahwas ibnu hakim te daif la xadis birut wa jazama al iraqi fi taxrij al ahadith iya ulumuddin bi dox fi sanaduhu même iraqi yi bi muy def taxrij ci xadis yi ñëw ci iya ulumuddin bokk na ci xadis yim daifal ne daif la bii bokk na ci sanad bi dafa daif waxat axrajahu nisaa yi waxaala innu mun kar nisaa yi tamit nee na xadis bi xadis bu ñu weddi la du du du bu wér te ku xool xadis bi da nga ci gis uslub waxin woo xam ne dafa dàqonteeg balaaxa yonent bi maanaam fasaaxa yonent bi waxinu yonent bi yonent bi nee woon fasaaxa ku xool xadis bi da nga ci gis lu dàqonteeg waxi yonent bi danga xam ne lii du wax yonent bi da nga xam ne tamit du teggin yonent bi yonent bi ni mu amee woon teggin ni mu amee woon yar ku gis xadis bi da nga xam ne du teggin yonent bi yonent bi du waxee nii na ngeen futti ko comme ni ñaari giléem di futti ko mooy mooy mbaam ximaaraani xiiraani ay ximaaraani bu leen futti comme ni ñaari mbaam di futti ko koo gis da xam ne lii du wax yonent bi ndaxte melo woo xam ne dëppwut ak mbirum ñaari ñaari way dencante jamono ji ñu futtiku ndaxte mbirum ñaari mbaam mbaam ku ne xam ne ne dañ koy toroxal fu mu toll kenn wuru cee joxe misaal yonent bi du joxe misaal di jël ñaari nit ñaari way dencante ñoom dañoo dencante ci sunna takkante mu jël leen di leen misaale ñaari mbaam benn loolu di teggin ñaareel ba mooy ay mbaam seen futtiku gi ñu futtiku yàlla leen bind noonu doonul loo xam ne ñoo ko sabablul seen bopp loolu bokk na ci lii dàq wax ji ne du wax yonent bi doonte xadis bi daa nekk xadis saxi dàgg na orma waaye daif la kenn du ci ixtijaajoo kenn du ci dellu kon loolu bokk na ci li nga xam ne mën nañ koo sukkandikoo ci ne ñaari way dencante daal fépp fu nu mën a bànneexoo ci ñoom ñaar dagan nañu bànneexoon defe bu ñu gisee ne futtiku ba set def yaramu neen ci lañuy ñuy mën a amee bànneex bañ bëgg ñoom ñaar lislaam kon ne leen futtiku leen ba set waaye su fekkee ne mën nañu suturlu tamit ñu suturlu wallaahu aalam mu mel ne kon ñu dikk ci beneen laaj boo xam ne day dem ci mawdooxub istixdaaru shahwati bi taxayuli wa nadar fi suurati alxalia maanaam teewlu bànneex ci janeer maanaam teewlu bànneex ci janeer ak xool photo yoo xam ne jigéen ñi ca nekk dañu futtiku ba set moo xam ay photo la wala pornographie yoo xam ne dañ koy seetaan ci téléphone wala ci télévision ak yu mel noonu kii laaj nag dafay laaj ne nee na góor la goo xam ne dafa am juróom fukki at maanaam mag la mu am juróom fukki at waaye bànneexub sëyam dafa néew doole loo ko waral mooy mage gi mage nekk gi mu nekk mag moo tax bànneex bi mu yëg ci sëy daal dafa néew doole te nee na sama soxna rafetut tëruwut ba mën a yëkkati sama bànneex ba mën a yëkkati sama bànneex tëruwut mënta yëkkati sama bànneex ndax sabab yi tax a yëkkati bànneex xëy na feem ya mënu ko mu mujj loru ci loolu lool ba tax may xool photo yoo xam ne dañ ay jigéen a ci nekk dañoo summiku ba set ma di ko xool bala may joteeg sama soxna ngir mën a teewlu bànneex bi maanaam su ma yoree sama téléphone def ca pornographie film yooyu jigéen gu summiku def peppum nen di jote ma xool ko ba sama bànneex ñëw ba ma teewlu sama bànneex door a mën a joteeg sama soxna ba sama bànneex jóg may door a mën a jote sama soxna ndax sama soxna mënu koo yëkkati nee na jeneer googu may def mel ni maa ngi maa euh, teewlu bànneex gi may def jamono ji may joteeg sama soxna nee na damay janeer mel ni maa ngi jote ak geneen jigéen comme maanaam na ma ko doon xoolee ca photo ba mu def yaramu neen dafay mel ne kuy ku kuy janeer jàkkaarlook moom waaye sama soxna sii tiim moom mel na ni ku fi nekkul dal ndax loolu daggan na wala dagan maanaa di xool laaj bi ñu baamu ko nee na dafa am juróom-ñett dafa am juróom fukki at bànneexam dafa néew doole bànneexum sëyam ngir mag gi magee tax te soxna am ko daa tëruwut bay mën a génn yëkkati bànneexam nee na ma nee na damaa loru ci loolu lool ba tax may xool photo yoo xam ne geneen jigéen a ca nekk goo xam ne xaw ma ko sax amaana dama koy seetaan ci filmu wala lu mën a doon goo xam ne dafa futtiku ngir mën a teewlu bànneex jamono ji may joteeg sama soxna loolu laay janeer su ma ko janeeree ba sama bànneex di jóg nag may joteeg sama soxna ndax loolu dagan na wala dagan tontu biñ koy tontu mooy xool foto yoo xam ne jigéen da caa nekk ba pare summeeku walla góor nekk ca summeeku ci jigéen loolu moom ku ne xam ne ne xaraam na bil ijtimaa bil ijma borom xam yi dëppoo nañ ci ne lu xaraam la góor di xool photo jigéen boo xam ne da caa summeeku ba set te du soxnaam wala mu di ko xool ci téléphone walla film yooyu yu prono yu mel noonu loolu dafa xaraam dëppoo nañ ci ndax xool photo bi ak xool jëmm ji mu taxaw nga jàkkaarlook moom ñoom rekk kayam ñoo yam amuñu benn différence moo tax dafa xaram ci lislaam mu ne ko kon liñ koy wax dañ naan ko su fekkee da ngay xool photo geneen jigéen gu summiku da mel ni yaa ngi koy xool bi mu taxawee nga xam ne différence bu néew lañ am te xool ay photo yu mel noonu day tijji ci yow bunti caay-caay yu baree baree baree bari te tamit da koy sosal yàquk jikko nit kuy def loolu góor guy def loolu da lay sosal yàquk jikko ak ñaaw jikko ak lëndëmi xol day tax sa xol day lëndëm day sabab tamit wow xol day tax tamit sa jikko dellu wàññiku jëm ci ak caay-caay maanaam xalaat geneen jigéen teewlu ku dul sa soxna maanaam di ko xool ci photo photo laa wax di jàkkaaroom waaye maa bu dee li ñuy wax taxayul nag jeneer jeneer nag jamono ji muy jote wala may wax nañ ci wax yu bari di sa soxna di jeneer geneen jigéen gudul sa soxna li gën a wóor ci li jumhur wax dañ ne dañ ko sib xaraamut jeneer moom di jeneer awray geneen jigéen dañ ko sib waaye xaraamut kii nag nee na woon moom jamono ji muy jote ci la koy jeneer kon dañ naan ko jeneer gi nga koy jeneer jamono ji ngay jote loolu dañ ko sib waaye xaraamut comme ni ko ibnul qaymu al jawsi waxee ci téeréem boobu di badaaul fawaid te jus u ba safha treize fukk ak asar euh, fukk ak ñett soo demee da ko ci fekk ci téeréem ibnul qayyim al jawsi bi mu tuddee badaaul fawaid kon daal li ma lay laabiré yow mbokk mi laaj lii na nga dëgëral sa ngëm sa imaan na ko dëgëral noo koy dëgërale mooy ci dikkar tur yàlla ak di jàng alquran ak di julli guddi ndaxte imaan ju dëgër maanaam imaan ju dëgër lu am solo la ci doomu aadama imaan ju dëgër dana tax dana wéral sa xol dana ko réparer ba ayib yu bon yi ci nekkoon yépp dañ te xol bi su fekkee wér na maanaa wér na ji yaram yépp ay wér cër yépp ay wér inna fi l insaan muddoqa ida salaxat salaxa jasadu kullaha nit am na lumbu deret wu ci nekk woo xam ne bu wéree maanaam bu wéree jaar ci yoon cër yi ci des yépp jaar ci yoon ndax xol dañ naan mooy sëfëru cër yi leen di kondiir fu mu leen jëmale rek fa la ñuy jëm kon maa ngi lay dénk ngay dunde dund goo xam ne di lekk loo xam ne day dëgëral sa bànneex di faju tamit kon mën ngaa dem seeti médecin yi soo seetee médecin yi xëy na danañ la jox solution te nga muñ wàññiku gii la yàlla maanaa wàññiku gii la yàlla teg ndax lii ku ne xam ne ne ak wàññiku la te nga ñaan suñ borom aafiya mu génne la ci te nga gërëm cër bii la yàlla sédd nag maanaa natt la bu la yàlla teg na nga ko gërëm te nga dund ak sa soxna ci njekk maanaam dund soxna ci njekk maaruf lii la dal bum tax ngay xalaat ba tax nga bañ sa soxna maanaam nii ko yàlla bindee moom nga xam ne xawuta taaru bay mën a jeqi sa bànneex ak mel noonu bum tax nga bañ ko ca na nga mën na muñ loolu te yàlla tax ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne laa yaf laa yufriku muminun min muminatin in kariha minha xuluqan radiya jullit bu góor mënta am ci jullit bu jigéen lam bëgg lépp sa soxna soo bañee ci moom benn jikko am na jikko yu la neex ci moom maanaam mënoo takk soxna la nga bëgg ci moom lépp nga am ko koo gis muy dox ci mbedd mi rek su doxee ci góor goo gis rekk bu génnee ci mbedd mi gis ko gënal jabaram te du tax mu fase jabaram takk kookee kon yàlla noonu la doxale góor ak jigéen kenn ku nekk am nga ay défaut am nga jëf ju baax aada ju baax am nga lu baax jikko ju baax maanaam yu bon yooyu jikko ju baax jooje day fatt day madd jëf ju bon jooje moo tax góor goo gis am na lu ko naqari ci jabaram jabar joo gis am na lu ko naqari ci boroom këram yonent bi sallam nee na kenn mënta am jabar ju mat sëkk yoo xam ne la ngay wut ci moom lépp mat na sëkk yonent bi nee mënta ne jigéen it mënta am boroom kër boo xam ne la mu bëgg lépp ci góor a nga ca moom loolu mënta ne yonent bi nee na faaw am kenn ku nekk danga am manquant loolu nag la koy mottali mooy muñalante moo tax nag li ma lay digal mooy nga muñal sa soxna si kon bum julit bu mere julit bu góor bu mele julit bu jigéen ngir ayib su sibee ca moom dara su bañee ca moom benn jikko rek am na jikko yum gërëm ci moom yooyee na ko jël xoo maanaam fàtte ko yooya ndax yéen sa sunu borom subhaanahu wa taala dafay wax ci alquran wa aashiruhunna bil maaruf jigéen ñi na ngeen dund ak ñoom ci njëkk fa in karihtumuhunna su ngeen bañee ci ñoom dara jenn jikko fa asa an takrahu shay'an amaana ngeen bañ ci ñoom dara sax wa yaj'al allahu fii xayran kathiran suñu borom defal leen ci njaboot gu barkeel na ngeen dund ak ñoom ci njëkk ibnu abbas di tarjumaani alquran daf daan toog ba mu yàgg mu dem ci seetu bi bi muy door a am soxna nee ñu mu dem ci seetu bi peñe karaw gi diw ko sol lu rafet ñu ne ko yem na abbas ndax danga bëgg dëddu àdduna gi nga defoon ndax danga bëgg a sóobuwaat ci àdduna mu ne déedéet sunu borom daf ne wa na bil maaruf na ngeen dund ak jigéen ñi ci njekk te jigéen ñi ni ñuy bégg ci góor ñi maanaam góor ñi ni ñuy bégg ci jigéen ñi bu ñu sañsee seen xol sedd jigéen ñi tamit kazaalika noonu lañ mel ci seeni borom kër bu seen borom kër sañsee sol lu rafet tabaarkalla dañ naan ah sama nijaay sañsee nga tey dañuy bëgg moo tax kon ni ñu leen di béggale ci col gu rafet ak defaru sañse yéen góor ñi tamit na ngeen leen di béggal Ibnu Abbas noonu la déggoon aaya bi kon loolu mooy li ñuy tontu boroom kër boobu sun boroom teg natt boobu yàlla na ko yàlla teggal natt bi te wayafal ko te wayafal ko bépp jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillah mu dellu ci laaj bi nga xam ne mbokk mi daf koy laaj danger bi nekk ci joteb ñaari way dencante ci wetu seeni doom maanaam xatarul muasharati al jinsiya bi jiwaari al ndaw si dafay laaj ne sama jëkkër daf may sàkku ngir ma jote ak moom ma daal lank li tax ma lànk mooy néeg bi suñ doom yu ndaw yi dañ cee nekk di nelaw te amuñu lu dul benn néeg amuñu beneen néeg boo xam ne danañ fa mën a faj suñuy ajo nee na léegi bi nga xam ne loolu am na sama boroom kër fanaane mer fanaane ma mere mer ma sax dem ba ay fan ba àgg ci weer ba ëpp ko te bëccëg gi kat waxtu yaatu na lool ngir mu faj aajom ci man ndax bàkkaar bii malaaka yi dañ may fanaane rëbb ba suba jot comme ni ma dégg boroom xam-xam yi di ko wax walla déet kooku soxna si ñu ngi lay sant di la gërëm laaj ba am na solo lool liñ ci tontu nag mooy dañ naan ko sip nañ sëyub diggante ñaari way dencante ci palaas boo xam ne ay gone dañ cay nelaw li fekk gone yee di am ñetti at sib nañ ko li fekk ñuy am ñetti at sib nañ ko ndaxte loolu at la yoo xam ne gone gi du ca ràññee maam lu gën a néew ñetti waaye bu ko xasee am rek gone gi day tàmbulee lum lu mu gis da koy jàpp maanaam image yi dikk ci kanamam yépp da koy jàpp ci biiram maanaam da koy jàpp te du ko fàtte ba keroog mu nekk mag te fàttaliku googu mu ngi koy fàttaliku mën naa doon sabab bu tax mu xeeb ñaari way juróom mu xeeb baayam ak yaayam te mën naa tax tamit mu woyefal seen mbir mën naa àtte ci ñoom gone yi tamit néew kersa ak ñàkki teggin man ne leen a sababal néew kersa ak ñàkki teggin sib gi nag day gën a dolliku lu gone yi gën a nekk mag di nelaw ci néeg bi sib gi day dolliku lu at yi gën a dolliku rek sib gi di gën a dolliku ndaxte su suñu woon ba jam ci loolu ayib lay doon ci ñoom yoo xam ne seeni bàyyi leen ko teg lu mel ne jotee yu mel noonu amaana mu jeexintal ñoom ba keroog ñuy mat mu kàllaf yàq seeni jikko te bu boobaa bu seeni jikko xasee yàqu ngir loolu seeni way jur dootu ñu leen a mën a yar dut ñu leen a mën a tarbiya tarbiya bu rafet yar bu rafet kem yar bañ bëgg lu may ne dañuy mujj am kersa te dut ñu leen wekk kon jaaduwut ci góor gi muy sàkku soxnaam ngir joteek moom ci néeg boo xam ne ay gone yu ndaw dañ cey nelaw doonte néeg ba daa lëndëm sax doonte dafa lëndëm jaaduwul li gën ci ñoom ñaar mooy kenn ku nekk nelaw sori sa morom ñaari way denc góor gi jigéen gi na kenn ku nekk sori sa morom yaay ji na nelaw ca gone ya maanaam na dem tëdd ca gone ya jege gone ya baay bi nelaw nelaw moom beru xëy na mu tëdd ca lal ba soxna si tëdd ci suuf ak gone yi loolu mooy li nga xam ne du indi benn lënt du indi benn suppa ndaxte gone yi ci jamono ji dañuy xam lu bari li xew ci diggante joteb ñaari góor ak jigéen kon loolu bokk na ci aada yi nga xam ne day mën naa sabab ci gone yi bu ñu yeewoon bayam ca mu indi leen xillatul muraati wal xayaa néew kersa ak ñàkk kers ñàkk ko kon loolu doonut loo xam ne lu baax la te day indi doxful imaan waaye nag yow mbokk mu jigéen mii nga xam ne yaay laaj lii am nga àq ci tere sa borom kër sa bopp bu fekkee gone yi dañuy nelaw ci néeg bi am nga àq ci tere ko te maanaam tere sa borom kër sa bopp te dara du la ci fekk sun borom du la ci rëbb su fekkee amoo beneen place bu ngeen mën a wéet faj seen aajo kon am nga àq ci tere ko sa bopp te dara du la ci fekk waaye ñi ngi lay digal di la laay biire tere ga nga koy tere sa bopp nga tere ko ko ciy teggin maanaam waxe ko ko waxin woo xam ne du ca mer maanaam du ci am benn xat-xatu xol wala benn xat-xatu dënn kon loolu mooy atte bi nga xam ne mën nañ ko ca atte kon loolu mooy suñu laaj bu mujj bi nga xam ne ci la ñuy tàggatoo mbokk yi kon ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di leen wax ne seen mbokk Massamba Syll moo leen doon defal e, loolu muy tontu laaj yooyu nga xam ne jotoon nañ fi rot di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lu jub ci tont yi ci borom bi subhanahu wa taala la lu ci dëng sunu ñàkk xam-xam la ak sunu gàtt fasaaxa di sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu